ak ñeent doon ñuy jëfandikoo franc fa ñu taxawaloon ko ci atum 1945 li ni mel wéy di jur débat ba léegi ci société bi ñu jàpp ni franc fa nekkul lu dul monnaie coloniale 21 décembre 2019 juróom-ñeenti réew ak réew France fas yéeneen ko indi ay coppite ñu waroon changé tur bi def ko éco li ni mel amoon ci teewaay njiitu réewu Côte d'Ivoire di Alassane Ouattara ak président français bi di Emmanuel Macron. campagne électorale bi doon occasion pour candidat yi daal di fësal seeni i programme waxtaanee ko ak seeni i ku ne di wax ak indi ay leeral candidat bii di Bassirou Diomaye Faye bokk ci ñi boobu boobule débat tax na tey loolu moo daal di jur coow li ñu bëri jàpp ni génnum ci franc CFA bi dafa bëri ay gàllankoor yu bëri ndax nekkul rek lu yomb économistes yi daal di see yëy yàpp yi ñu bëri jàpp ni dafa bëri ay risques te du noonee rek la daal di ñëwee indi ay coppite ci li ni mel. Anta Babacar Ngom doon candidat si jongante jiiti réew yi moom nag dafa daal di interpellé candidat bi di Bassirou Diomaye fay ngir rek mu ñëw indi ay leeral ci li ni mel.